gouvernement Diomaye Faye dana nul nul de deux mandats loolu amul jurisprudence ah bon parce que 2001 maître la caution juriste yi ñu ngi lay dégg de waaw teg maa déglu mais est xam nga ne ñu ngi lay dégg mais man du ma dof mais xam nga ne juriste yi ñu ngi lay dégg parce que ma ko xam ah, Sénégal du juriste yi de waaw Sénégal yëpp kon jeex na kon jeex na même Macky Sall mooy déglu kon jeex na déglu ma wax waaw El Hadji buy jàll ñëpp koy déglu doon dëgg rek lay waaw dama ni la la constitution de Ablaye Wade de 2001 ma ba léegi kenn sensible de le principe des deux mandats kay moo ni man sama bopp boolewul sama bopp mën nañ ko ko bàyyil bu bëggee mais keneen ku mën a ñëw bi Pape Ngaye muy Macky Sall muy El Hadj yi moom moom c'est fini comme ni ko waa Macky Sall waxee. gasi Macky nee na gasi nee na kàbbar na ñaari yoon ñu ne ko sëriñ bi taxawal mu ne day day mu mu war a mu war a. wax salaamaaleykum bëgg ko kabaaraat ñu ne ko subaana taxawal taxawal xam nga kon da nga war a taxaw stop bi mu ñëwee moom changé quelques articles durée bi la changé deux mandats yi laal ko def ko consolider xam nga li ma la def clause d'éternité ni du fi jógee di mukk nul ma Ismaïla Madior Fall wax dëgg nul nul nul ñett nul la laal la bëggoon a déglul fii nul Ismaïla Madior Fall kenn mënatu lef trois mandats. nul ne peut faire plus de deux mandats loolu depuis 2001 la bi ñu wàññee durée bi de 7 à cinq ans ñu ne la durée du mandat c' de cinq ans mais nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs newuñ nul ne peut faire plus de deux mandats de 5 ans consécutifs loolu bu ñu ko rek ñu ne bon kon premier mandat bi mooy 5 ans njëkk yi mais mandat muy mandat 15 ans. ok mandat 35 ans plus mandat 2 ans ñaari mandat la xam nga. mandat 28 ans mandat 75 ans nga boole deux mandats la boo amee premier mandat de 38 ans man man foog naa di nga ma gën a leeralal. non non maa ngi koy leeral maa ngi leeral ci jurisprudence bi ci jurisprudence bi maanaam ñu sukkandiku ci nu ñu attee woon. ci la lay wax ci ndi joxe ci atteem bu ñu sukkandikoo ci loolu ndax lii nga may wax nii dina am. bale laa lay waxal waaw mais mais man. Pape Pape déglu ma boo déglu du leer sa bopp bi. ok dimbale ma tax ni. Wade bi mu nee kenn du fi amati lépp deux mandats mais moom mu ne moom bokku ci moom moo njëkkoon dafa verrouiller la constitution. waaw ni wax waxeet. waaw. mag la mën nañ ko nangul. Ah bon waaye kenn mënu koo am déglu rek mag bi mu ñëwee changé wu ci dara ci deux manda yooyu ñu ne kenn mënu ko weesu. ah app bi sept ans yi la wàññi ba cinq ans rek kon moom amul lu amul benn jurisprudence bu koy appliqué comprendre nga fi may maa lay dégg waat dafa ñëw ne léegi deux kenn du ko feesati ñu wax ne j'ai verrouillé la constitution. Mhm. loolu la waxoon. tëj naa ko man ci boobu de dépassé deux mandats ñu ne ko yaa ko waxoon mu ne waaw waxeet am na fa wala amu fi. kon kenn mënatu ëpp deux mandats loolu leer na waat di ñëw jalgati ak conséquence bu la neexee mais Macky bi ñuy dinawu ci dara ci loolu mooy kenn mënul weesu deux mandats yi laal ko mhm. mais neen na léegi sept ans yi xeewi da cinq ans lay def. mais moom demoon na ni moom même sept ans da koy wàññi ba cinq ans xam nga doon na ko fi wax conseil constaté ko bu na ko wàññi sept ans yi moom da koy def mais deux mandats yi fekk it moom nga yem ci nga yem <laughs> xam nga fekk na fi deux mandats mënu koo dindi sept ans yi yëpp fekkoon mënu koo dindi sept ans la def deux mandats yi moom kenn ba ko dindi cinq ans yi la dindi pour mandat bi ci topp muy bii nii comprendre nga ni fi léegi leer na. maître euh, bon xëy na leer na ci ñi lay dégg. léegi nag léegi nag fi ma bëgg leer fi ma terminer foofu débat boobu. quand di en français. nul ne peut plus de deux mandats consécutifs jébu ñoo xam durée mandat bi ñaari mandat yu taqaloo kenn mënu ko weesu lañu wax cinq ak sept ak mandat vingt cinq ans. mandat 1200 ans loolu sa xalaat la. non loolu mooy loolu mooy ak droit non loolu yow loolu sa xalaat la Pape Ngagne waaw ku bëgg a déggul ku bëggul dégg. mais mais mais maître Doudou Ndoye ko dégg. Doudou Ndoye daa màgget léegi. ah bon waaw ah, waaw bu la neexee nga wax nag mag buur la. ok xam nga lu loo xel day dem. waa ah, d'accord mais dama ne waaw waaw bu mag la mais loo gis yàlla mayul day able. Mhm. de looy dégg ñu naan diw dafay dégénéré. Mhm. dégénérescence dafa am xam nga être être humain dafa am naissance ah développement et décadence mooy dund màgg après dee mais mag buur la. en tout cas avocat la comme yow en tout cas nekkoon na fi ministre de la justice. ma ni juge yëpp da nga de ah, non attends bind na fi. ma ne juge ñoo ko bind na fi loo xam ne yow bindoo ko fi. nga di yow nga di ci gëstu keneen a keneen di ci gëstu. boo taxawee boo taxawee nga wax li nga ni moom parce que dafa dafa naax wala leneen moo tax mu wax loolu mais loolu loolu mën loolu. loolu yow assumé ko mais dama ni. waaw mën na am. booy commencé màgget xëy na ngay perte ay points mun naa ko nangul suma grand la bëgg naa ko loolu sama xarit la mais ni mu waxee ñun ñun avocat yëpp dafa ñu bett ñun juriste yëpp dafa ñu bett mais grand bu bu bu am jàng bu am xam-xam bu bind lu bëri li bind du ma ko bind sama morom du ko bind. avocat dina liggéey ba dee fii magistrat liggéey ba dee doo bind dundooy bind gàcce ngaalaama dundooy mais nag foqatalu day am faxastalu dooy dégg faxastalu Youssou Ndour wéy faxastalu day am waxal waawal déet wala déet du faxastalu cat day am mën naa am cat a ko jàpp aussi mais parce que Pape Ngagne li nga xam ne yow comprendre ko Seydou Gueye dégg bi la koy liir. xam nga man man donc déglu Seydou Gueye. man du ma wax waxu. Seydou dégg nga Macky Sall bi la koy expliqué du ma man du ma wax na yimbi léegi maître Doudou Ndoye bi muy wax. li muy wax ci daf ko teg ci yoon la ko teg. dama yow dégg nga li mu expliqué tegu ko yoon waxul yoon hors sujet la def bu doon devoir la zéro lay am déggoo ma de Zouanka bu doon dóor waale zéro lay am xam nga li ma la wax par contre y a des juristes y a des grands constitutionnalistes y compris Ismaïla Madior Fall bi ma la booy moo mu yooyu muy wax kenn du fi ëppati deux mandats téere doo ko déglu non mais maître c'est-à-dire donc les grands les grands juristes déglu li ñu déglu ci audio yi mais leer na et puis Ismaïla Madior lu ne Ismaïla li mu wax mais mi ngi ci internet bi ñëpp dégg nañ ko moom moo bind constitution bi Ismaïla Madior moo taxaw ne nul kenn muy fi am lépp ñaari mandat dundooy bu ñëwee nii mën na ko am fu ko teg ba ci ban droit wax ma ko yow yow mi bëri xam-xam ci droit yaa ngi dundooy dundooy explication fan la ko teg léegi dundooy fu mu jëlee trois mandats yooyu Macky Sall mën a def on ne peut pas être plus royaliste que le roi Pape Ngagne le roi Macky Sall a dit man a Macky Sall suma premier mandat laa nekk bu mu ñoom falaatee waaye ma sama deuxième mandat lay def pare naa ci ab damay def sama second mandat. maître je pense que gentleman nga loolu aw ma ci dut bu ñu eggoon tey ba conseil constitutionnel ni président Sall mandat sept ans bi bokk ci am nga droit def beneen mandat lan ngay wax. côté boobu amu ci gentleman ah dama dul